mbir mu kéemaani di tiis ak naqar moom nag moo gontoo askan wi féete fii ci yoonu daaru raxmaan tàkkusaan ak altine jàpp timis ñetti xale yu góor ñoo daal di lab ci déeg bi nga xam ne ni foofu lañ doon sëmbee bu sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne ni bàyyeekoo na ci ñenn ci askan wa féete foofu déeg bi kët ay xale yu bari ñoo fiy ñëw bët bu set ci nawet bi di sangu ak sëmb waaye jéey ji nag mu ngi fi door a am muy ñetti xale yu góor yi nga xam ne ni aytu tut tànk lan doon sëmb ba daal di ñàkk seen bakkan ndaxam sax ñoom sax mbooloo la ñu woon waaye ñoom ñetti ñii kat ñoom la mbir mi daal di arrivé te ñeneen ñi nga xam ne ni fekk na leen fi amuñu woon benn pexe ngir mën leen a génn ci jéeye jilee gannaaw bi nag ci lañu ñu daal di woo sapeur pompier ñu ñëw jël néewum ñetti xale yooyu yóbbu hôpital ngir mën koo jébbal seeni mbokk ci jamono yi nga xam ne ni nag kilifa aaday tubaay yi ñu doon am ab tukkeem nemmeeku ñeel mbënd mi sous-préfet ak maire ñëwoon nañ ci bërëb bi nga xam ne nii foofu la jéye ji amee mu nekk mbir mu doy moo xam ne nii askan wi gontoon nañu ko li mu ngi am ci jamono yi nga xam ne nii yoonu daaru rahman gii lu ko soriwul dara am na beneen xale boo xam ne nii gis nañ am néewam ci ndoxum taw bi mu nekk nawet boo xam ne nii ndox mi bëri na lool rawatina nag taataay ak mbënd mi ndax kon jotul nag ñii di waajur yi di yore tout tànk yi gën a farlu ci sàmm gi ak xale yi ngir ñu mën a mucc ci jéye